Macky Sall la wax ma leneen. voilà donc euh, defe naa audio boobu ñun ñoo ko déggandoo mes frères et xam nga euh, le problème que notre président a defe naa soit dafa am problème mu am amnésia mooy gaaw a fàtte wala mu nekk nit koo xam ne il est malade mentalement parce que bu fekkee le président Macky Sall il n'est pas malade. Euh, war naa comprendre ne que les son sont réveillés euh, les son sont réveillés euh, Sénégal on est en deux mille dix neuf may leen ma une seconde ma jël suñu frère bi Ousmane Ousmane Dramé mooy woote xam naa dafa bëgg participer baal ma mais quand li ma am pour wax te bariwul je pense que les sénégalais le savent. Euh, loolu jarul sax ñu ci sori mooy euh, il faut que les sénégalais ñu comprendre ne euh, dañoo war a génn dañoo war a génn en masse te suñu coobere du critiquer xam nga man tey bu dee am naa jom waruma critiquer sénégalais yi parce que sénégalais yi bu ñu nekkee foofu Sénégal génn man Amérique laa nekk donc aw ma dara loo xam ne war naa leen koo rapproché ngeen ah, aleykum salaam wa rahmatullahi grand Ousmane ñoo ngi lay ziar. di la di la jaajëfal waaw léegi thème bi mm. tey thème bi euh, mm. vraiment ci marche bi la pour ñu génn vendredi donc dañu mm. bëgg a pour euh, comme temps bi bariwul ñu concentré wu ci woo doomu aadama yi ñu génn pour vendredi incha allah ci ci côté boobu sax laa gën a jëm voilà euh, yàlla yàlla yàlla dogal na mm-hmm. tout un sénégalais mm-hmm. tout un sénégalais bu ne mm-hmm. xam nga damaa kii xamul fu jëm tout un Sénégalais bu ne mhm. nekk xam nga ne liñ amoon lépp jox nañ ko mhm. tout un Sénégalais xam na ne mhm. fu ñu lebe xaalis si àdduna maag ki dem na fa leb ba ñu bu fi jaarati tout un Sénégalais xam na ne la coopération internationale bi maye xeetu sarax bu ne jox na ko Macky Sall te tey yéen a añe benn alors yooyu ñu kon jox lépp lépp lii mu politikoo lii mu sàcc ko lii mu séddoo ko lii mu lii bokk ak i moromam kooku day affaire xam ne umpul ab sénégalais euh, la défense e noble la défense est une discipline universelle tarixa bu nekk ñuy défense diine ju ne mhm. am na défense religion bu ne ak lépp lu mën a doon ak li civilisation défense dafa am solo te muy dëgg te muy dëgg moo tax américains yi jël ay milliards mhm. def ci défense effectivement kon nag ñun sénégalais yi mhm. jot défendre suñu bopp jot ndax kenn duñ ko defal kenn duñ ko defal kenn duñ ko defal moo tax marsu àjjuma bii bi àjjuma bii euh, foofu sénégalais nekk ni imaam yi xutba nañ tëye nañ tëye bu ne asalaamaaleykum rek yéen ñëpp na nga daje place de l'indépendance mhm. ku ci julli àjjuma ba sëlmal imaam bi waxal waxal waxal ñëpp ni leen bu ngeen jógee fii ci jàkka ji jubal leen place de l'indépendance bis la boo xam ne bisub lislaam la bis la boo xam ne bisub diini la bis la boo xam ne bisub ndam la bis la boo xam ne bisub moom sa bopp la c'est-à-dire indépendance ab jullit ab jullit bu moomul boppam mënta am diine mënoo am borom ba pare mën a jaamu beneen borom te kat ni yàlla joxe alxuraan teg kot sa loxo bi nga la fabal noonu la indi pétrole bi ak gaz bi ak jamaa bi ak or bi ne la jëlal mënoon nangu bii nag bàyyi ba ca des ñoom ñëpp a baax ni alxuraan ji baaxee laa la de ni ni la pétrole bi baaxee ak gaz bi ak or bi ak bi ba tax na na ko boole ci diine ji nag ci diine ji képp koo xam ne nar nañ koy yàqal kan mi la daa taxaw ci kaw alxuraan ñu wutu yàq taxaw la Macky Sall gañuwul Macky Sall mos a doon président de la République Sénégal yi yëpp a ko xam kilifa yi diine yëpp ko xam droit ñi def droit ak amnistie ñëpp xam ne Macky Sall dafa siif réew mi booboo tey ngeen di muñ xool xool seen bokki gambien yi gambien bi euh, léegi trois léegi trois ans jot waxut dara ne pat waa réew mi jóg fàttaliku ko ni ko eh yaa ne woon kat ñetti at ñetti at yi dana mat danu bëgg a topp suñu baaram bi Macky Sall ñu ne juróomi at waxut dëgg daw na référendum dikku sàcc maanaam mel ni ko yor ay golo dana dem addina bi mu sikk Macky Sall mu ko sikk de nit ñi dañuy sikk nit ñi dañuy sikk ba tax na ajjuma nag suba ajjuma ajjuma nag ñëpp jóg maanaam selmaxa yi selmaxa yi nañ leen wommat indi ambulance dimbali ma waa ambulance ngeen jël malade def ci oto yi indi ca place ba nag kuy Sénégal yi génn ku mën a génn immigré yi nag immigré yi képp koo xam ne immigré ñoo lay ñaan wool sa waa kër seen waa kër woo ko mu daje fa bu ñu fa déggee yi euh, ñun immigré yi bu fekkee ne fay nañ facture yi rek on n'a pas compris nos langues yéen immigré yi yéen woon na le bon exemple parce que yéen immigré yi bu ngeen fayul courant ñu coupé seen kër ñu coupé seen kër waa koñ bi duñ am kersa waaye du ngeen bàyyi ñu coupé waa koñ bi yéen ngeen taal seen i làmp moo tax maa ngi invité tous les immigrés mbir mi yàggut du passé deux mois Serigne Touba Mbacké ñi tax ñuy coow baaram ñu monsieur taal lampe courant Alaaji Malick bi toñee daan mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi ma Maodo Moussa Tall lamp électrique lan la ci jàng alxuraan Cheikh Umar xamu ko Baye Niass xamu ko bu fekkee ne duñ ay naafeq fu ngeen toll mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi ba courant mënta am dañ ko muñ xamuñu ko topp towuñ ko téwul mokkal nañu alxuraan mokkal kon yéen immigré yi jàpp leen ci jàpp leen ngir yàlla seeni lamp bu tàkkee rek kon bi dañuy kersaw waaye yéen bu seen làmb tàkkee fayee message bi day jàll bu kenn fay làmb nañ taaj benn bërigo ci kon bi facture bu di ko bi sànni ko ci facture bu di ko sànni ci bërigo bi xale yi di ko suree képp koo na ñëw ko coupé ab làmp na ko na ko xale yi taalaat képp koo xam ne sa xale yi ñu woowee man maa ngi leen di invité boobu yi ngeen ay man nga xam ne coono rek ak dépression moo tax ñu abandonné kër yi nekk ci kër yu ak guri yi damaa bëgg ngeen génn ax yi damaa bëgg nga génn kër yu àggul yooyu yéen sànqmaan yi génn leen ci koñ bi électricien ku jógee Sénélec ngeen seet mu dugg ci kër coupé courant duma leen ko su nangutu way yi mu demetaat leen këram yéen sànqmaan yi samay jarbaat ngeen ñii di samay doom ñii di samay doomi xarit am nattu képp la waaye lee mu jeex bu soobee yàlla lee mu jeex tàkk génn leen ci bâtiment yi ngeen làqu ak marché yi ngeen toog ngeen tas ci koñ yi képp ku ngeen seen mu dëkk Senelec débranché compteur bu jàmbur du ma leen ko nangu tuba ji bàyyi ma daw taati leen kon nag Ousmane naa la bàyyi keneen dugg xol day jeex rek xol jeex sama askan wu ñu sonn sama askan la kon maa ngi jégg bu baax a baax yal na yàlla def jàmm jaa ngeen jëf merci euh, maa ngi leen di ziyaaraat ma ñëwaat rek won leen benn image lii ku ko xool marché Sandaga la woon en 1960 regardez comment c'était propre et bien fait regardez les arbres ni mu dundee woon ni mu avancé woon ma ñëw rek ma won leen beneen image boo xam ne tey boo ko xooleen euh, marché Sandaga présent présent boo leen ko xoolee deux mille dix neuf mi ngi noonu ci suuf mooy marché Sandaga boo leen ko xoolee en deux mille dix neuf mi ngi noonu ci suuf. xool leen ko 1960 ni mu setee woon xool leen 2019 ni marché Sandaga mel xool leen ko léegi ma ñëw ma indil leen dëkk bu mel ni Dubaï ngeen xool Dubaï ni mu meloon 1960 ak ni mu mel présent xool leen Dubaï désert la woon 1980 80 pas 60 1980 maanaam ñaar fukki at après 1960 60 70 80 vingt après mille neuf cent quatre-vingt maanaam Dubaï diggante quatre-vingt ak deux mille dix-neuf la mel nii xool leen lii dafa dem ba ñu def ay île ba ñu indi fa transporter fa géej Dubaï amul géej ñoom ñoo fa def géej dañu man-made island dañ fa def île man-made île île ñoom ñoo ko indi ñoom ñoo transporter seen bopp île ñu indi ko ngeen xool yu mel nii ci dëkk wala tey boo demee Corée Corée moom wax noppi Euh, defe naa euh, ba ci téléphone bii may utiliser euh, c'est fait en Corée Samsung xool leen technologie bi nga xam ne coréen yi moom la ñu def téléphone bu la neexee nga lem mu nekk téléphone bu la neexee nga tijji ko mu continuer nekkaat téléphone ba léegi lépp plat même image bi ngay gisaat lii coré moo ko defar donc Sénégal coré Corée ñun ñoo leen gënoon avancé on était plus avancé que la en technologie lépp ñun ñoo leen gënoon avancé mais tey boo demee ci dëkk bu mel ni Corée ñemewuloo ko wone ñemewuloo wone ay image yu Corée tellement que Corée avancé avancée Corée mi ngi ci puissance mondiale yi la bokk puissance mondiale yi maanaam dafa jeggi dayoo maanaam ñun sénégalais yi ba léegi ñu ngi xëccoo kan moo triyande kan kan moo nangu kan dix mille ban ban mouvement moo def lan ban mouvement moo def lan dinaa leen jox benn proverbe boo xam ne proverbe bii xam leen li may wax de benn nitu mouvement moo ko wax bugguma nag wax tur ay mouvement parce que tey bugguma xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ñu concentré wu mais ku ko dégg di nga dégg waxin bi lii ci benn nitu mouvement laa ko déggee wax jii ci moom la jóge benn nitu mouvement ci mouvement yi mouvement citoyen yi te dinaa leen ko ñëw rappeler dans quelque jours waa ji dafa ne dafa mas a dem euh, dafa doon joxe benn proverbe muy waxtaan mu ne dafa mas a dem euh, ci këru benn paas chinois euh, paas chinois bi paas chinois bi yor ñaari vase pas asiatique asiatique ma ma leeral asiatique pas asiatique bi yor ñaari vase ci këram donc benn va ñaari vase yëpp ay crabe la def ay crabe xam ngeen crabe mooy li ngeen di bëgg di ko def ci seen suppu kanja yi crabe donc ñaari vase yëpp dafa def crabe benn vase bi ñu ngi ko ub benn vase bi ubuñu ko mais pourtant ñaari vase yëpp ay crabe ñoo nekk ci biir pour ma wax leen rek li ngeen di wax ni saful sénégalais yi sénégalais xaste safu ko sénégalais ngaññante safu ko comme tey Tunkara moo yaakaar ne yaa ngi koy xas maa ngi koy saaga dina ko naqari da ngaa dof cee fu damay pare fii ma dem lekki sama reer bu jaar yoon man naan sama ndox mu sedd guy te tëdd nekk ci jàmm di utiliser sama technologie du may yëgalu ma sax sama yaram ne sénégalais ngi xaste wala mi ngi wax lu ñaaw parce que wax bu ñaaw ki koy wax la intéressé du ki nga xam ne ci moom la jëm man ama personne lépp loo xam ne sénégalais yaa koy wax du ma naqari parce que man li may xeexal mooy Sénégal donc nit kooku comme ni ma leen waxee c'est une personne d'un mouvement moo ma wax proverbe bi xool leen proverbe bi ni mu xóotee is deep ni ko américain di waxee mu ne bi mu demee ci pan asiatique bi ñaari vase la yor benn vase bi def ay ñaari vase yëpp y avait des crabes à l'intérieur des vases benn crabe benn vase bi ñu ub ko benn bi ubuñu ko mu laaj pan asiatique bi mu ne ko mais man dafa am loo xam ne euh, Euh, mais vraiment euh, crap yi man affaire bi jaaxal na ma de parce que bi ñii yaa ngi leen ub ñii ubuloo leen te bi nga ub euh, bi nga ub bi génnul mais bi nga ub gaa yaa ngi jéem a génn te lu tax c'est quoi pas asiatique bi ne ko <laughs> ah, ah, ah, ok crab yi waaw mu ne ko parce que crab yi ma ub ay crabu africain lañu a non non ay crabu européen lañu ay crabu européen c'est crabu européen la moo tax ma ub leen mu ne bi ma ubbi noonu nag crabe africain la mu ne la différence en est que crabe yi soo leen ubul dañuy puusante ñu dem dañuy buuxante pour ñu dem parce que tubaab seetlu ko toujours tubaab boo soxlaa xam dara dala ciy dimbali buux la avancé loola mu ne mais crabe africain yi jaruñoo ub parce que benn bu nekk bay dem bay waaj a génn rek beneen bi dina ko xëcc mu waat ci suuf parce que africain xol bee setut maanaam dem ngeen ba asiatique yi xam nañu loolu ci ñun tubaab yi xam nañ ko ils nous connaissent ils nous connaissent bien xam nañ ne africain du pousse africain tey boo wooyee sa mbokk africain diw ah diw sa mbasin bi rafet na foo ko jëndee fekk marché Sandaga la ko jëndee ah bii de Dubaï la am bii rek ka fa desoon jeex na sax fi mu ne fi koy jaayee amatul bii rek ka fa desoon pour lan laal seen africain bu bon bi yaakaar na ne bu la ko waxee comme yow da nga ciy jënd boobu day ñaawal bosam loolu adduna mentalité boobu buñ koy am mënuñoo avancer mënuñoo am avancement ñun ci suñu ay tête ñun coxorte moo tax mënuñoo dem moo tax ñun ñuy immigré ji ci ay dëkku jàmbur moo tax ñun suñu dëkk mënuñu faa invité kenn tey sénégalais xool leen ni ngeen gentil ni ngeen gaawee invité nit seen kër añ pour mu xool sa ay photo yu rafet gis nga loolu boo ko defoon ci lépp da ngay avancer yàlla kuy dimbali sama diggante ak yàlla laa leen di wax de Tunkara mooy wax ak yéen au nom de mon li may maye ci at bi xaw ma nu muy toll te musuma kaana musuma delloo ginnaaw maye du po du pro pauvre loo nit yàlla nit kuy maye yàlla day ubbi sa ay wërsëg jël leen li ngeen am ngeen séddale ko ak seeni voisin ak seeni xarit doo walaakaana bu dee benn nga am sa xarit bu ñëwee ah diw na def am nga nga ne ko waaw am naa jëlal genn wàll ma jël genn wàll billaahi wallaahi tallaahi yàlla day barkeel li ci des yonent yàlla daan na ne mun a lekk bu mu ñu teg pour benn nit ñaar mën nañ cee suur lekk bu ñu teg pour ñaar ñeenti nit mën nañ cee lekk lekk bu ñu teg pour ñeent juróom-ñett mën nañ cee lekk donc doomu aadama xalaat leen ñun surtout africain nañu xalaat ne suñu propre ennemi mooy soxor suñu xarit yi di génn di marché ak ñun suñu doomu ndey yi di génn di marché ak ñun ngaññi leen duñu njariñ dara ku naa fekk sa diggante la ak yàlla ku ci bon sa diggante la ak yàlla mais tant ñu ngi génn ci mbedd mi nañu génn ñun ñëpp ñu ànd ñun ñëpp ñu xàccandoo ñu dóorandoo parce que noonu rek la ñu mënee gañe waaye nga toog fii nga toog ci sa koñ ak sa xol ah kii de àndul ak Idi kii de dafa bañ Idi léegi man it dama koy bañ wala kii de wala àndul ak Sonko man it dama koy bañ wala kii de àndul ak Macky man it dama koy bañ déedéet mbir mi du loolu. mbir mi du ku nekk parti politique bi muy àndal wala kii a ah, bokkuñu mouvement xam ngeen lu tax ba léegi mu ba léegi one million marche nekkul mouvement. ba léegi one million marche c'est pas un mouvement citoyen parce que bu xante bi lay bañ y a assez de mouvement au Sénégal Sénégal doy na ci ay mouvement li fa ne bari na gis nga one million marche ak aar li ñu bokk ak euh, euh, euh, bii nu mu tudd noo lànk wallahi c'est le même concept parce que li ñu laajte rek mooy un million de personnes génn dem déloger Macky Sall mais sénégalais yi mënuñu koo comprendre ci seen bopp ñu ngi ne ah lii de bu dee du man maa ko créé du ma am crédit bi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu indil message yu islam mais xam nga ko créé l'islam yàlla moo ko créé l'islam mooy religion bi jiitu ci àdduna bi booba yonent bi judduwul pourtant yonent bi il a le crédit booba yàlla judduwul islam bi muy ñëw yonent yàlla n'était pas né son nom est même dans les autres livres islam dafa yàgg ci àdduna bi nee nañu la tout le monde est né musulman ñëpp ci l'islam la ñu judd ñëpp la wax mais du yegg ci loolu parce que tey du jour waaraate mais li important mooy doomu aadama yi ngeen bàyyi ci xel mooy soxor yéene néeg la boroom rek moo ciy fanaan gis nga tànke sa xol bi mi ngi metti yaa ngi soxor yow yaay toog sa biir kër di souffrir dina diw ni ma ko bañee diw nekk ci jàmm yow nga toog sa biir kër gi sa xol gi di metti ngay souffrir moo tax la plupart des africains la moo ñuy rey cardiaque on est tous morts de cardiaque cardiaque rek ka ñuy rey xol buy metti parce que suñu xol yi ñu ngi ci garde nu ñuy defee pour gën a naqaral nit pour gën a soxore nit pour gën a delloo nit ginnaaw te yàlla nit ku bi mu lay bind bind na sa wërsëg ci yow kenn mënulaa delloo ginnaaw mënuloo delloo sa xarit bi ginnaaw de da ngay perdre sa temps kenn ci ñun mënul delloo kenn ginnaaw ça c'est une réalité loolu ku ko xam jël ko nga boole ko ci sa ci sa xam-xam kenn mënul delloo kenn ginnaaw kenn mënul yàqal kenn yàlla décidé na ba pare li nga xam ne moom mooy xew Sénégal xoolal yàlla moo ñu indil bañkat yi yàlla moo ñu indil naa fekk yi yàlla moo ñu indil nit ñu baax ñi mais boo amul naa fekk doo xam nit ku dëggu boo amul nit ku dëggu doo xam naa fekk il faut nga am ñaari yëpp pour nga mën a balancer boo amul ku feebar doo xam ku wér boo amul ku wér doo xam feebar il faut que mu balancer il faut que les deux se balancent loolu dafa am loolu ci health la bokk ci sante doomu aadama la bokk ça fait partie de notre santé suñu santé dafa baax ñu am ay nit yu ñu opposé dafa baax ñu am Macky Sall pour ñu mën a xam président bu bon ni muy mel bu boobaa buñ ko fa dindee ñu mën a wut ku baax teg ko fa tey senegal yëpp dialogué nañ ko duma fi tudd ay tur waaye sama diggante ak yàlla ak yonente bi la Sénégal est foutu ils ont dialogué le Sénégal entre eux ils l'ont manipulé waxante nañ ko ku nekk wax nañ la loo ci war a def ku nekk wax nañ la loo ci war a am du coup déggatu leen benn homme politique bu génn di ŋàññ kenn génnatul Issa Sall mu pur sax ki nga xam ne il était un peu conservatif génn na ci mbir mi Issa Sall mu pur laa leen wax koo xam ne tey professeur Issa Sall ku ko xooloon ne ah kii de nit ku jub la kii de nit ku te dëggu la ñëpp jaay nañu seen ngor sama xarit yu baax yi léegi boo leen wooyee dañ leen ne man bàyyi naa politique parce que seen parti politique jaay na ngoram eh adduna yàlla doy waar affaire yàlla moo doy waar affaire yàlla moo kéemaane sénégalais yi nañu génn ñu dem xeexal suñu bopp politiciens yi nekkaluñ fi senegal li ma lay wax nii dafa grave Issa dama toog di woo ay doomu aadama diw na nga def waaw nañu dem ci marché eh, ñu ne la man bàyyi naa politique ah man léegi c'est fini wala nga daje ak ay nit ñuy dawal Mercedes ma ne ah diw naka nga def ça va bien ça va dañuy yàkkam di waxtaan bi jeex ñu dem wuup daw nañu ils ont fui ils ne veulent plus te parler parce que man je suis teinté je suis sale parce que je n'aime pas Sall man Sénégal moo ma intéressé Macky Sall ak dara lu muy def intéressé wu ma donc di coup moi je suis un tétanos du ñu wax nag nit ko mel ni man dañuy daw mais comme ni ma leen ko waxee dégg ngeen sama tur ma fi Sonko tudduma fi euh, Idri tudduma fi keneen tudduma fi euh, Madické tudduma fi keneen li ma bëgg xam rek mooy ku jaay sa ngor yow xam nga ku yor sa ngor ba léegi yow xam nga man tudduma fi tur tudduma fi turu kenn je n'ai pas parlé le nom de quelqu'un ñu ne bu ñu accuser rek mu naqari la dafa fekk li ñuy accuser yow la man tudduma fi turu kenn kenn dégguma fi ma tudd turu benn politicien mais je vais vous dire que jaay nañu seen ngor de ils ont vendu leur âme au diable ils ont discuté avec Macky Sall ils sont tombés d'accord te du ñu ŋàññati doo leen déggati benn politicien buy génn di waxati ci senegal déedéet il vont aller se cacher dans leur cachette bu mbir mi jotee ñu ñëw dagg gâteau bi ku nekk jël sa walla daw ak moom mais tudduma tur je n'ai pas parlé de non voilà ñu ne ku ñu ne jaajëf wala ku ñu fay sa bor mu nga nga mu naqari la rek day fekk li nga leble ah, ah, moo baaxul mais nag comme ni ma ko waxee ah, yéen ñëpp yéen a ngi remarqué li ma nekk di remarqué le doomu senegale yëpp di remarqué et moi je ne suis même pas sur place je suis loin mes amis patriotes mes amis sénégalais mes frères et sœurs nañu génn ñu xeexal Sénégal néew ma leen ñu génnal xeexal benn parti politique tudduma fi kenn nañu génn ñu xeexal Sénégal moi je sais ce que je vous am na ay affaires yoo xam ne ñun ñoo ko mën a dindi si suñu bopp. Euh, Voilà, nous, tu parles de Issa Sall euh, et Cheikh Tidiane Gadio. Non, je vous dis même Issa Sall, j'ai donné Issa Sall comme exemple. Je ne serai pas loin dans ce débat. Comme Nimalen Kowahe, on a besoin que les Sénégalais se réveillent. Les Sénégalais, leen xam ne Sénégal rek, moo ñu intéressé. Sénégal rek, tudduma fi turu politicien. Gis ngeen ne tey moytu naa loolu. Tudduma fi turu mouvement citoyen. gis ngeen ne tey moytu naa loolu li ma am loo xam ne loolu laa bëgg a wax mooy ñoo lànk collectif bi Guy Marius Sagna mi ngi ci kaso bi Guy Marius Sagna est toujours dans la prison mes frères sénégalais dama bëgg caméra bi jege ma bu ko manee ma waxtaan ak yéen Guy Marius Sagna est toujours en prison et je sais que je ne suis pas un grand savant au Sénégal mais je sais qu'il ne le mérite pas docteur Babacar Diop mi ngi ci kaso bi je sais que je ne suis pas un grand savant je n'ai pas beaucoup de euh, connaissances mais il ne le mérite pas Weuz Def Tech mais Leuz Def Tech Weuz Def mi ngi ci biir kaso bi je sais que je n'ai pas de, beaucoup de connaissances mais je sais qu'il ne le mérite pas il y a cinq autres patriotes qui sont dans ces mêmes prisons je sais que je n'ai pas beaucoup de connaissances mais je sais qu'ils ne le méritent pas Mes frères et sœurs sénégalais, l'heure est grave. Personne ne viendra nous sauver chez nous. Seuls nous-mêmes, nous pouvons le faire pour nu tey waxtaan bi duma ko guddal dépassé fii fii lay yem maa ngi leen di ñaan ñu génn ñu daje place de l'indépendance suba dinaa ñëwaat def même chose lii c'est pas un mouvement citoyen qui le fait pour un sénégalais ay mouvement sitoyen ñoo fi daje ñu tuddee ko ñoo lànk moi je fais partir de d'autres sénégalais font partir ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bokk nañ ci ñu bëgg ñëpp génn ñu jàppale mouvement citoyen bi suñu frère Abdou Karim Gueye jox na ma message mi ngi leen di nuyu de passage te mi ngi leen di remercier ci jàppale bi ngeen ko jàppale dinañu ñëwaat nag ci ay fan parce que euh, comme dañu jëloon responsabilité ne dañ koy faj paj mi cher na yàgg na matut li ñu li ñu dajale li ñu jotoon dajale on a les factures matul dinañu ñëwaat pour defaat li ci bi encore ketalaat ko parce que bëgguñu xaalis bu setul faj ko bëgg nañu citoyens yi génn fajee ko seen alalu bopp donc on reviendra dans ces jours qui suivent pour ñun ñëpp ñu waxtaan ci ñu dajalewaatal ko li nga xam ne moom mooy mottali paj mi nga xam ne moom lañ koy def parce que il est vraiment il est dans des situations sérieuses mais il va il va mieux te mi ngi remercier remercier ñëpp mais wax bi mu wax doomu sénégalais yëpp ngeen dégg ko même wax boobu la la la la la la nee na bu ñu sacrifier Guy Marius Sagna il ne faut pas qu'on sacrifie Guy et les autres patriotes qui sont en prison bu ñu leen sacrifié ils sont sorti pour défendre nos libertés ils sont sortis pour l'injustice ils sont sorti pour dire non euh, ci yokkute courant bi bu leen sénégalais yi abandone ci biir kaso bi ça c'est un message de notre frère patriote mu ne sénégalais yi bu ñu abandonné suñu frère yu nekk ci biir kaso bi le rassemblement c'est le 20 décembre 2019 à la place de l'indépendance ñu ciy woo doomu sénégalais yépp ak fépp foo leen mën a nekk ñu ngi woo waa Fuuta ñu ngi woo waa Ziguinchor ñu ngi woo waa Dagana ñu ngi woo waa Podor ñu ngi woo waa Mat Matam ñu ngi woo waa Kaolack ñu ngi woo waa Vélingara waa Kolda waa Ziguinchor waa Tambacounda waa jurbel waa Kédougou waa Kidira ñu ngi woo ñëpp fépp foo leen mës a nekk foo leen mën a nekk ci Sénégal ngeen génn ci seen gox yooyu ngeen nekk amul problème foo leen mën a nekk génn leen ngeen naqarlu nañu génn ñu naqarlu nañu génn ñu naqarlu li nga xam ne moom lañ ñuy teg Sénégal parce que le Sénégal va mal le Sénégal va très mal buñ fi toogoon di ko wax ba suba duñ ko yeggal le Sénégal va très mal l'attaque personnelle entre les mouvements citoyens ne nous intéresse pas ñun du la du doomu aadama moo ñu intéressé c'est le Sénégal qui nous intéresse nous voulons nous concentrer sur le Sénégal ku am koy critiquer Macky Sall la tudd moom moo yor sa ay koppar moom moo ko lekk amul benn doomu sénégalais boo xam ne man nga ko critiquer ci sa alal ki yor sa alal ki yor malgérance su Sénégal ki yor ki goree di ki ki toppatoowul Sénégal kooku Macky Sall la tudd balaa may dem nag je ne vais plus je ne vais je ne peux pas partir sans vous faire écouter ceci encore comme niñ koy defee toujours euh, ma xool ndax am na fii baal leen ma euh, dama leen ko bëgg a dégluloo euh, parce que on le fait toujours bu ñu ñëwee ci live bi balaa ñuy dem ñu dégluloo leen message de support ñu déglu leen message d'encouragement suñu sœur yu baax yi asalaamaaleykum mbokk mi kooku kan la ak koy fooy wootee waaw man la Cheikh bu Genève. man na nga def. ça va ça donc euh, man nañ la may tuuti temps rek. pour nga développer ci affaire marche bi. voilà vas-y. waaw exactement moo tax parce que euh, du ma a yàgg quoi. ngala vas-y merci bi moom waaw marche bi moom waaw am na solo lool il faut gars yi continue ko. Mm-hmm. et puis ñu dem euh, pour comme ni ñu ko waxee place de l'indépendance. Mm-hmm. ñu bañ leen aussi distraire quoi bu ñu bu ñu nangu ñu distraire leen xam nañ ni mu demee comme bii passé rek. Mhm, mhm. Euh, ñi nga xam dañ ñëw pour saboter moom ñooñu moom bu ñu leen boole sax ci liggéey bi quoi nañ déterminé xam liñ bëgg. Mhm. place de l' indépendance ak kër gu mag ñoo jàng daanaka benn la. waaw bu ñu waaxoo ñaari waaxu rek yegg. na dem foofu parce que li tax ñu war a dem foofu. Euh, dafa am solo lépp ngi concentré wu foofu ambassade yeeg. Euh, maanaam waa bitim réew lépp ngi démb damay dégg benn euh, live damay seetaan benn live benn waay dugg ci. Mhm. wax lu am solo. Mhm. wax lu am solo parce que nekk bi ñuy weccante xalaat mi am na solo lool. Mhm. ci la ñuy parce que nekk su indee xam-xamam rek buñ ko booloo mu am solo. cest à benn waay bu am lu mu wax mu ne bi ñu koy wax ci yaa astu Demba. donc euh, Mermoz Jean Mermoz. Euh, moom la ñu war a dem foofu manifester wu fa. indi ay pancarte. Euh, ba nag bu jigéen ñi xam nga tubaab moom jigéen a ko yilif jabar jaa ko yilif mhm. bu ñu ñëwee di indi xale yi seen doom yëpp fa la ñuy jàngisee bu ñu ñëwee indi xale yi mhm. ñu ñu ñu foofu yëpp xaw fa xumbal tuuti xale yi ragal bu yaa ngi jeex fat yi feet yaa ngi ñëw dans deux jours ñu tëj dem vacances balaa ñoo dellu si dinañ wax seen yaay ñoom ragal nañu choc bi daal maanaam dëgg la bu ñu defee loolu. Mhm. waaw ñooñu xam nga ñoom ñoo tëjlu sawaay ñoo tëjlu gars yi. Mhm. France tëjlu gars yi du Macky Sall de Macky moom dañ koy wax defal lii rek mu def. waaw ñooñu dinañ ko ne génneel ma génneel gars yi. parce que voilà da ngay waaru affaire baa ngi bëgg a déborder wu bon dem nañ ba école et cetera famille yaa ngi commencé kii yooyu dinañ ko ne ubbil génneel gars yi mu génne leen. Mhm. te ñaareel bi. waaw ñaareel bi. muy maanaam euh, euh, même waa ji mooy wax ba tey ñaareel bi. Mm-hmm. nee na ne yi dem aussi beneen système am na pour autoroute à péage yi. Mm-hmm. ñu occupé ko. yëkkati barrière bi ba barrière bi euh, bàyyi oto di jàll. Mm-hmm. kooku muy signe patriotique. kooku aussi dëgg la ci dëgg la signe parce que ku ci jàll fayoo. boo demee ba yàgg ci sa kër di nga ko wax say mbokk ak say xarit. te signe la boo xam ne euh, signe bu am solo la dinañ ah waay mais gars yi daal ñooy gëree quoi xam nga rek xoolal fayuma sax quoi dañu ubbi barrière bi bàyyi oto yëpp ñu jàll. mais bu mm-hmm. ñu ne ñi daal dañoo ñàkk fayda lakkal nañ lëjal nañ gisoo ñu ngi ñëw bloqué autoroute beeg yooyu mais bu ci xaalis bokkee rek. Mm-hmm. ñu gisee mbir mi leneen. ñaari affaire yu ja a bàyyi xel léegi nag tey fii ci Genève dañu defoon benn dafa amoon benn dañu xam nga ji dafa waroon a ñëw tey alors boo xoolee xaw ma ndax seet jot nga ko seetlu mais posté naa ko déjà pris bi ñu ko fi waroon a jox parce que at bii atu Afrique la waa léegi nag euh, euh, ni ñu koy waxeeti cégep cégep et puis euh, international dañuy doon joxe ay prix te Guy Marius Sagna la ñu choisir mm-hmm. euh, la waroon a yegg si tey mu mën a jël si mu mën a jël si euh, prix am mm-hmm. mais prix bi incha allah awa dina ko yóbbu jël na ko tey war na fa lañ nekkoon ñun ñëpp. jot naa filmé naa ko waaw. filmé naa ko jot naa ko sax film bi yónnee ma sax film bi waaw dinaa la ko yónnee donc parce que jot naa ko def sama page sax yëpp parce que direct laa ko doon filmé ak ak prix bi. merci ak prix beeg yooyu. léegi euh, moom mooy moom mooy l'homme de l'année. Mm-hmm. ndax bravoure am et li mu ni mu taxawoo xamoon na ni day ñëw ah, pour nga mën a xam ne jii li ko soxal Sénégal rek la. Mm-hmm. du affaire xaalis du affaire tour mm-hmm. fàllewul yooyu yëpp dafa waroon a dem jëli jëli de le dix ba le ba le dix sept la mm-hmm. le dix sept la waroon ñëw le dix le dix sept dafa waroon jëli visa am xamoon na lépp billet baa ngi ci enveloppe bi ba léegi mm-hmm. billet avion enveloppe bi fàllewul yooyu yëpp mm-hmm. xamoon na li mu doon risqué mu dem mu dem mu dem pale téye na le dix huit waroon na ñëw fii ñu ngi ko doon xaar ñëpp ñëw nañu ba mu des moom mais quand même taxaw nañ euh, euh, kii bi euh, séminaire bi réussir na Euh, euh, def nañ ko ni ñu ko waroon a defee bon wax dëgg yàlla moom rek moo fi manqué woon. voilà et ça c' est bien passé quoi dina la yónnee. naa la ko yónnee. merci beaucoup grand donc dama bëgg a. gën a tàngal <laughs> mhm. volume bi rek pour vendredi place de l' indépendance moo tax bugguma gars yi ñàkk euh, concentration. donc lan nga ñu bëgg a sànnil pour vendredi place de l' indépendance. ñu tëj waaw. waaw waaw place de moom indépendance moom foofu moom mooy yoon yi. voilà parce que bu ñu ko demee ba tuddee ko place de l' indépendance parce que ñun suñu indépendance ko. voilà c' est ça. moo ñu war a dem place de l' amul feneen fu ñu war a dem. foofu la ñu war a dem. parce que fële lépp concentré wu en plus. Mhm. su ko defee ñi ñuy waxal mën ñoo dégg. loolu mooy dëgg merci grand. waaw place de l' mooy demukaay bi. merci waaw baax na Ousmane jërëjëf donc ñu bàyyi la ba beneen merci merci beaucoup. waaw jërëjëf jërëjëf Ousmane ñoo ko bëgg. voilà donc gars yi euh, je vais vous faire écouter euh, cet audio. il y a tant de choses. voilà la ñuy tàggatoo nag tant de choses. condamné par ce silence amer. on continue de subir un silence et de se taire par complicité, cupidité ou naïveté. Qu'attendez-vous? l'appel du miaouin ou la forfait? sénégalais. Que fais-tu des mots de Valdiodio qui, devant l'assistance, se lance dans l'essence Frère, as-tu une idée de ce qu'a subi la dame de Cabrousse qui a tenu tête jusqu'à sa dernière souffle Sénégalais, es-tu conscient des sacrifices qu'a consenti l'homme de Tchétou pour te au rang de noblesse et de grandeur Un natif du ne s'est jamais tue au moment où il fallait se faire entendre. Donc pourquoi Pourquoi fuir aujourd'hui face à cette... Oh, oh, Fleur Madras, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, oh, oh. waaw s'il te plaît bu fekkee après man nga ma yónnee message inbox oh non non yàlla na ko yàlla yërëm oh non c'est pas c'est c'est catastrophique oh non non non non non non moo tax dégguma ko ay fan yu bari euh, donc euh, même ibu Niang gars yi maa ngi leen di ñaan notre frère Ibou Niang ku xam fu mu mën a nekk ci àdduna bi c'est un jeune un jeune sénégalais je sais qu'il avait aussi des ambitions de voyager donc Ibou Niang ku xam fu mu nekk rek vraiment nga def ma signe ah vraiment euh, Rama Sow waaw xaw ma ko sax en personne mais c'était une dame qui est extraordinaire koo xam ne dafa daan nekk ci xeex bi oh non non non non na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ñu yàlla na ko yàlla jébbal àjjana bi gën a kawe ci aju àjjana yi ah vraiment s'il te plaît fleur madras boo ma mënee inbox bu dee aussi xam nga ay mbokk ay mbokkam nga inbox ma nga yónnee ma numéro comme ça je vais envoyer euh, mes condoléances vraiment ma woo leen en personne ah vraiment xool na nag oh là là oh là ah ndeysaan moom suñu frère bi Atlanta donc euh, vraiment les patriotes euh, lii mooy àddina on est devenu une grande famille et parfois euh, parmi nous am na ay nit yuy génn àddina donc comme ni ñuy dundee di wér noonu aussi la génne àddina yàlla na ko yàlla yërëm oh am naa lu ma metti nag tey quoi oh, vraiment vraiment vraiment am naa lu ma parce que y a un moment gisatuma ko ci lay yi sax oh. Oh. Oh, yàlla na ko yàlla yërëm waaye yàlla na ko yàlla yërëm oh waaw gars yi euh, defe naa comme niñ ko xamee rek. injustice visible. les combattants qui la population Mes chers, le panafricanisme ne consiste pas en un mot. Oh. C'est un sentiment plus fort que la vie, qui doit demeurer ton credo et doit se traduire par des actes. Mon frère, arme-toi de courage et d'abnégation. Ton pays a besoin de toi. Dignes fils du Sénégal, unissons-nous. Ce n'est pas le moment de dormir sous nos oreillettes. Mes chers, que nous soyons du Wallo du Niambour, du Sine Kayor ou du Bawal, du Jolof au Casamance, nous sommes et demeurons des frères. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Ce qui nous lie, est plus fort qu'une question d'ethnie, d'appartenance culturelle, religieuse ou même politique. Mère, père, frères et amis, compagnons, le pays de la Teranga a besoin de toi. Les combattants de la liberté ont besoin de toi. Guy Maris et ses camarades ont besoin de toi. Le destin nous a réunis et la destinée est une. Sénégal, aux Sénégalais. Viens, venez, venons le décembre à la place de l'indépendance. Nous avons une dette envers ces messieurs. Nous avons une dette envers notre pays. waaw defe naa euh, incha allah gars yi dañ koy yemale fii rek ba beneen. Euh, vraiment euh, xol tooy na nag euh, parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay kenn bu dalee dara si ñun day mel ni ñun ñëpp la dal donc vraiment sama xol bi vraiment naqari na ci événement yi ma dégg nii léegi vraiment sama me fait beaucoup mal au donc nee na vrai Lion Diallo vrai Lion Diallo il faut nga mu ne c'est pas vrai stop I don't know what is it all il faut ngeen arrêter gars il faut arrêter les choses comme ça il faut euh, vraiment yàlla na ko yàlla yërëm yàlla euh, na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm euh, yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ñu oh ah une grande dame une grande dame parce que xeex bii moom euh, yàlla na ko yàlla yërëm gars yi donc euh, s'il vous plaît comme ni ñu leen ko waxee sorton en masse incha allah vendredi 20 place de l'indépendance parce que c'est ce que les patriotes ont besoin de voir de nous euh, saa bu dara dale kenn ci ñun dañuy ñu ne daanu c'est pas grave Euh, daanu tëdd moo grave daanu boo daanoo da ngay jóg nga faxasu nga continuer sa trajet donc nañu jóg ñu faxasu ñu continuer suñu trajet incha allahu yàlla nañu yàlla may ndam ajjuma on sa donne rendez-vous à la place de l'indépendance et merci à tout le monde